action ñu ngi taxaw ak euh, yàgg fay fii ci penk fii ci pencum Cheikh Béthio Thioune ñu koy ñaanal suñu boom yokk ay leeram jëlee ñu lay saar ba baax di la ndokkale ci magal gi nga xamante ni euh, démb la ko dund ak bisimilah. maa ngi leen di siyaare bu baax a baax euh, yéen sites yi lim yëpp. Feeling Dakar ak maa ngi leen di bëggee di leen ndokkale yéen aussi ci màggal gi ndax bis bi moom sëriñ bi bi mu ko wootee. Mhm. woowul jullit rek sax bàyyi ku dul jullit hmm. kon ñun ñëpp ñoo ko bokk dund nañ ko ci jàmm noo ngi ñaan Sëñ Tuubaa defal nu yoolu cant ci loolu mu wax ni euh, dafa woote ngir ñu sant la ko suñu borom hmm. te yàlla wax ci alxuraan ni ko sant naan la dolli hmm. yàlla nañ ci defee euh, daje ak ndollente lu wér ci barkeb Sëriñ Saliou yàgg yow nga nekk artiste bu mag Sénégal xam la macha allah ci liggéey bu am solo mais malgré ren dafa am lu ci rax loo xamante ne du doy waar la ki nga xamante ni mooy sa moroom bu artiste di Abdou Aziz Dabala moo euh, ki nga xam ne moom mooy benn jabaatam Wally ginnaaw euh, ba nga ko reyee ba ki dem foofu ca Ndakaaru ki nga xamante ni moom mooy le présumé meurtrier euh, ki ko rey démb la nga ko jàpp fii ak jëneekul ma xaw ci penc mi Cheikh Béthio sa jàngat ci loolu noonu. avant tout maa ngi ñaanal kooku nga tudd mooy Aziz ñu naan ko Aziz Dabala. suñu borom yërëm ko te xare ko aljana moo ko xale bi mu àndaloon waaye ma rat fii la tuuti rek boo nee sa morom artiste sa man may jàngkat moom mu doon fecc fecckat euh, ku faatu la yàlla na yàlla yërëm ko te xaree ko aljana ndax it ci li ñu dégg témoignage yi ñu am mooy julit la te julit moom li war ci moom su faatoo mooy ñaanal ku dul jullit sax nag ndax Serigne tubaa daf ni irham jami alwara man nag jàngkatub Cheikh Béthio laa di way Serigne Saliou waaye di jàngkatub xasaayit waaw ah, ay différence su voilà donc wax dëgg yàlla niñ ko déggee ñun ñëpp ñoo ko dégg noonu noonu euh, bi ngeen di taal seen micro yi maa leen di wax ne que ni affaire bi man dama ko bëgg a fàtte ndax tellement que dafa ma jàpp dafa ñaaw et dafa métti quoi dafa métti nit kuy dund feebarut dërëm jotu ko nga na taxaw jëflanteeg moom mu faatu balaa nga yegg ci jël bakkanam am na yu war a xew yoo xam ni douleur bi dina yàgg foo xam ni dootu ko attan man yooyu laay xalaat mu des ci sama bopp mënuma comprendre doomu aadama naka la mën a defee loolu quoi en tout cas ñaawul nañ ko rafetluwuñu ko ki yàlla dogal wala boog ñi yàlla dogal ñu faatu ci yàlla na sunu borom yërëm leen te xaril aljana ki ñu ki ñu jàppale moo ko rey di Mouhamed jaawo di dafa ni moom dafa doon bëgg paasu màggal moo tax mu jël baatam mu jël mu euh, jël bakkanam ndax ñëw Touba jar na nga rey sa moroom bu jullit déedéet loolu moom gëwuma ko sax ndax paasu màggal moom paas rek soo taxaw incha allah rabbi murit sëñ Tuubaa yi ñoo ngi fa buñ la ko jox sax dañ lay neexal yow mi ko bëgg wax malak ngay rayaate pour am paasu màggal loolu moom góomu ko ñaare ñi siiw ñi célébrité dañuy bëgg dëkk dëkk ci appartement ñoom kese ak seen ay nit ba yu mel ne boo amee dina jafe loolu ñu ma leen ñu ma leen dimbali maanaam warul leen est-ce que tamit duñu xoolaat un peu appartement yi euh, ñi nga xam ne moom yenn célébrité dafa dëkk ñoom kese ba yu mel ne boo amee kenn la mën a xam sa ba xam ñoom ñu ngi loolu nag xam nga ñoom la ñoom ñoom ñoom ñoo xool loolu ba mu neex leen ba mu doy leen ñu def ko te dëkk ci appartement loolu yàqut dara mm-hmm. waaye li ëpp solo ba ëpp solo. mooy nit ki sooy dund nekk ci société waxuma la koo xamante ni nee nga ñëpp dañ la xam mm-hmm. da ngay da ngay ñaaw njort foo tollu mm-hmm. et puis aussi di di di di waxuma waxuma pour dara nag ah, mais di dugg ci lu leer. foo tollu ngay ngay ngay clean quoi. maanaam euh, da ngay da ngay set tellement ko doo dox di gestu voilà maanaam maanaam maanaam maanaam dund dund goo xamante ni. maanaam voilà dund gu leer. doo doo doo am sens interdit doo am fii laa jaar wala fee doom fa jaar loolu maanaam du neexal dund nit ku quoi te loolu li koy andi mooy lu ne nga bëgg cee dugg te àddina si ma ne suta ta daw a daw a daw daw ba jàpp ko chaque jour nga dégg kuñ ne la milliardaire la étage bi gën a rëy ca Ndakaaru wala oto yi bari yi moo ko moom te mu ngi fii bàq yee ñu denc kon damay dellu ci li Serigne Saliou waxoon ne kenn ku ne sa biiru bopp bi na doon sa yitte ah, sa biir bàmmeel bi na doon sa ndax yàlla mi la ko jox ah, non maa ngi jégul daf ne am na lu Serigne Touba waxoon kenn ku ne sunu borom taxale na la ak ñaari biir sa biiru bopp bi ak sa biiru bàmmeel ne sa biiru bopp bi bu mu doon sa mhm. ndax yàlla mi la ko jox ne ak yow lu mu ci def te dana ko ci def mhm. ne bàmmeel bi nag na doon sa yitte ndax loo fa deful doo ko fa fekk loolu mooy ñu jël àddina gii ak i xoy-xoyam teg ko nee mhm. barki Cheikh Ahmadou Bamba boo la yàlla loolu nga doon wuti ci àddina moom mooy daw far di la wër si yow Mm-hmm. ci bisu màggal tubaa ci guddi gi la ñu teg loxo ki nga xamante ni moom mooy euh, le présumé meurtrier di Abdou Aziz Dabala fii la nga ko jàppee ci euh, maanaam Janako Moxa ndax waa police bi nga xam ne mooy police Janako Moxa moo ko jàpp ci guddi màggal est-ce que loolu di moom ay mbiram amul tànk amul tànk ginnaaw tànk karam lam te képp koo xamante ni def nga lu ñaaw dugg biir tubaa foo jaar di nga la jàpp ba tëj la ci kaso bi loolu sax laalewul ak tànk kanam Serigne Touba yi tànk kanam Serigne Touba yi moom boo koy xool Euh, ci lu négatif doo ko gis mukk ndax Sëñ Tuubaa amul lu négatif te loolu doo ko tudd sax di tudd tànk kanam yi Sëñ Tuubaa yi ndax loolu baaxut rafetut yàlla bëgg ko kenn bëgg ko mm-hmm. jëf ju ñaaw la mm-hmm. kon bu ko tudd sax di tudd tànk kanam yi Sëñ Tuubaa yi tànk kanam yi Sëñ kañ mooy li Sëñ Saaliw ndigal def pàkk bi ñu taxaw man ak yow mm-hmm. ay nag la ko duyoon fii ba mu fees dell séddale na ko Touba gépp te na ko sëñ Béthio doon defee loolu mooy tànki kanamu Serigne Touba yi def mbooloo mi ñu sant Serigne Saliou sant Serigne Touba sant la ko yàlla bég tey bégle loolu mooy tànk kanamu Serigne Touba yi waaye loolu moom laalewul dara ak tànk kanamu Serigne Touba yi jërëjëf